silaali ila aljannati baaxin tawassaat wa kulli wa maali za naxaamin mbokk yi seen yóbbalu bis bi ak seen mbokkum taalibe Cheikh Njaay Gànna sëriñ Tuuba xaadala wallaahu maxtaaralahu nee na yoon wu ma masa ñëw jamono lakkum juróom ñeen fukki at xëy na la ci jublu laa fi am defar jamono dellu waaye wi yoon lahum juróom ñaar fukki at ak juróom xëy na la ci jublu laa fi am siiw na loolu dañuy xamal ne sëriñ tuuba qaadala wallaahu maxtaara bari na lool lu mu daan dégg ci ba tey di ñu xamal ne day wéy di dëkkaat jamono ilaa yawmal xiyaam leeral na loolu itam ci ay mbindam yu bari waaye lim boobu mu wax moo xam la mu ci namm bari na lool nag ay soppeeku moo tax kenn wërta gis jenn wax ci moom ba tax ngay doyadil ñeneen fi mu ne bu ñuy jàng alquranul karim danañu gis sàngara fu mu koy limaale ci xiiwal yi gisaat fu mu koy limaale ci xaram yi wallaahu aalam sëriñ bi doon sëkk tey ak ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal